alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah mbokk yi albidaaya ni mu ko baaxoo di defe di dalal boroom xam-xam yi ci réew meeg bitim réew yépp tabarakallah yëg ni li ñu yor réew mi mën na koo jariñoo te itam mën na cee defaroo te sunu wàll nekk indil leen boroom xam-xam yooyu ci li ñu indee tey Euh, al ustaas docteur Mouhamed Ahmed Lo euh, nekk mu diir daarul istiqaama fii ci Dalifort tabarakallah di ñan sunu borom mu barkeel yëngut yi yépp euh, ak itam yi nga xam ne ay naal la yu fa nekk ñu ñëw ak moom tey ci tomb bu am solo waaye balaa ma leen tudd tomb bi dama leen di bàyyi ak docteur mu nuyoonte ak yéen docteur asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Oustaz Ali ñu ngi leen di nuyu di nuyu itam déglukat yi eh, dogu waxtaan bi ñuy wax albidaaya di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu boole ñu tawfiq noonu ak waa réew mi yëpp ak jullit yëpp ah, jërëjëf docteur Ahmed li ma bëgg nu ñëw ci tey eh, dañoo toll jamonoom soxla ko laal soxla woon ko démb soxla ko tey te itam su ëllëgee dañ koy soxla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 waay xam xamle ko daanaka bëgg a wax ne fatwa mooy lan jërul guddal ci wàllu wax arab day wax al fatwa di wax al di wax al ifta waaye loolu lépp la muy firi rek mooy al ixbaaru bil xukmi sharci liman saal mooy kala laaj lan la lislaam wax ci nàngam nga wax ko la lislaam wax loola moom la ñu tuddee alfatwa kon nettali atteb sharia ci koo xam ne ku laaj la loolu moom la ñuy tudde alfatwa jamono yoo xamee ne laaj na la laaj boo xam ne dafa aju ci diine nga jox ko ko euh, la nga def loolu moom la ñuy tudde alfatwa moom lañuy ñuy tudde itam al ifta moom lañuy ñuy tudde it al futiya ci kàllaam ak euh, danañ ci mën a yem foofu ba ci kanam su ko defee yeneen leeral yi dana ñëw ci biir incha allah tabarakallahu kon loolu lu am solo la muy eh, baatu alfatawa eh, ak itam iftaax te olof di ko wax ubbee maanaam nit ki laaj na laajam ci ñàkk xam ñu tontu ko ca lañ ko tontu mooy lañ ko ca ubbee benn mu ñàkk xam ndax lu dagan la wala lu xaraam la wala yooyu mu laaj ca ñu tontu ko nee loolu mooy ak ubbee tabarakallah ci tënk waaw beneen tomb bi kon mooy moom euh, laaj boobu ak tontu bi hmm. defe naa wàccuwaayam ci lislaam oustaz euh, lu rëy rëy la euh, la chaque ne wàccuwaayu fatwa wala ubbee ci wàllu diine hmm. wàccuwaay wu rëy rëy rëy lanu hmm. jëkk woon ne lu rëy la moo di borom bi tabaraka wa taala ci boppam méngoo na di ko def sun borom daf ne yastaftuunaka qul illahu yufti qul illahu yuftikum fi lkalaala danañu la laaj neel yàlla moo leen di ubbee ci kalaala waxaat ne wa yastaftuunaka fi nnisaai quli qul illahu yuftikum fihin ñi ngi lay laaj lu aju ci wàllu jigéen ñi na leen xamal ne yàlla moo leen ci ubbee kon borom bi tabaraka wa taala su fekkee ne moom ci boppam dana ubbee kon ubbee lu rëy la ñaareel ba moo di ne jamono yoo xamee ne nit ñi dem nañ ba amatuñ kuñ laaj atteb sharia mu mën leen koo leeralal ñu mën koo xam rekk bu boobaa fitna ñëw na ndax nit ñi ci ak réer li ñu nekk ba faw kon mufti wala kuy ubbee munta ñàkk ci askan wi ndax su amatul rek réer dikk na ñetteel bi moo di jëmmi ubbee ci boppam su fekkee ne jox nañ ko ña ko yeyoo ñu yore ko di ko def kooku jaarukaay la boo xam ne texeg àdduna mën na ca at jóge jóge ndax li ñuy wax darul mafasid ak jalbul masaalix muy lépp loo xam ne lu yàq la lu jëm ci askan wi la dana mën a jóg foofa lépp loo xam ne askan wi aajo woon ko ci wàllu njëriñ itam su fekkee ne nañ leen di ubbee ci seen wàllu diine lu tegu ci yoon la njariñ yooyu danañ ko mën a xëcc mu ñëw loolu texeg àdduna la muy jañ lor ak ñod di njëriñ lu jiitu texeg àllaaxira ga di ñëw gi nga xam ne su fekkee ne nit ñi am nañ ku leen di ubbee ubbee gu tegu ci dëgg di leen leeralal seen sharia danañu mën a tegu ci li ñu tudde listiqaama muy jaar ci li ñu tudde njub kon jëmmi ubbee ci boppam am na ay bunt yu mag a mag am na ay njariñ yu mag a mag yoo xam ne yuñ war a mën a màng la waaye moom it ñetti njariñ yooyu rek ñu yem foofu gàttal ko ndax li ne ci suñ kanam ci yuñ war a wax xaw naa takku te bëgg noo xaabaabal ci benn ba benn tomb di ci loru euh, tabaarakallah boobu it am solo la kon wàccuwaay bi ginnaaw ma nga tàmbalee ca yàlla jaar ci borom xam-xam yi am njëriñ ñu rëy yi nga xam ne moom la am su ko ñàkkee rek eh, tabarakallah mu mën a jur lu bari benn sëriñ bu mag a mag daan wax ne adduna day daa mel day bëgg a yàqu ndax bu njëkk dañ ko daan laaj door a def léegi na ne gis na nit ñaa ngi def te kenn laajut mhm. mu ne kon lu mën naa jurub yàq eh, kon ma jàll ci xam naa sama ñetteelu laaj muy nga ñëwal ñu kon ci fataawa moomu wàccuwaay bu rëy boobu ni mel mhm. nga ñëwal ñu ci ay arkaanam maanaam ponk yi nga xam ne ñoo ko nan lay toll kon su boobaa waaw ponk yi nga xam ne ñoo siq liggéey bi ñuy wax al muy ubbi ci wàllu diine ñeenti ponk la ponk bu ñu ko waxee mooy pieds yi nga xam ne ñoo ko yanu muy ay jën yoo xam ne bu ci dañ rek ngir ma day daal di manqué ka ci jëkk moo di muftin mooy ka ñuy laaj muy tontu ka ca tegu mooy mustaftin mooy kay laaj la ca tegu mooy mustaftan anhu mooy la laaj ñeenteelu ponk ba moo di muftan bihi mooy kañ laaj la mu tontu kon daal ku ñu laaj a ngi nii kuy laaj a ngi nii lu ñuy laaj a ngi nii tonta ngi nii ñeenti ponk ngoog kon yooyu nag benn bu ci nekk am na ay yëf yu aju ci moom yoo xam ne waxtaan la danañ ko jéem a gàttal ci nii la ci jëkk mooy al mufti ki ñuy laaj kooku moo di man yuxbiru bil xukmi sharciyi li man saal ka ñu laaj sharia mu tontu kooku moom lañuy ñuy tudde mufti mooy ka ñuy laaj muy tontu kooku nag danañ sart ci moom ñaari sart yoo xam ne benn mënu ci ñàkk sart yu mag la donte am na sart yu sew yoo xam ne dañuy tàbbi ci suufu loolu ba ci jëkk moo di kawnuhu aaliman ki laaj muy tontu faw rek war naa xam liñ ko laaj ndax kat su ko wax gi ci boppam day di doon lu rëy rëy rëy rëy borom bi taqfu ma laysa laka bihi ilm inna alsamaa walbasara walfuaada kullu ulaika kaana anhu masula nee na loo xamul bu ko wax ndax sa nopp bi ak sa bët bi ak sa xol bi nga xam ne mooy taatan lépp loo xam ne lu dugg ci sam xel la yooyu yëpp lay laaj la ëllëg maanaam am nga ci responsabilité kon loo xamut lu nekk na nga ko fa baax ñaareel bi borom bi tabaraka wa taala ne wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadiba hada xalaalun wa hada xaram li taftaru ala allahi alkadib inna alladina yaftaruna ala allahi alkadiba la yuflixuun nee na bu leen di wax naan jël seeni làmmiñ rek di wax naan lii dagan na lii xaraam na te fekk li ngeen di wax doonut lu am mu ne kat kuy waxal yàlla lu amut nee na kooku du texe kon nit ke la muy wax naan lii dagan na war naa am xam-xam bu wér buy wane ni lii dagan na la muy wax ne lii xaraam na war naa am xam-xam bu wér buy wane ni lii xaraam na sunu borom tabaraka wa taala waxaat na ne qul innama xarama rabbi alfawaxisha ma dahara minha wa ma batana wal isma wal baxya bi gayri alxaq wa an tushriku billahi ma lam yunazil bihi sultaana wa an taqulu ala allahi ma la taalamuun bi mu limee yi xaraam yépp nga xam ne dafa tàmbalee ca la xaw a dara woyofu ci waaye da leen a toftale tàmbalee ca la gën a woyof jëm ca kaw lu mu mujj andi rek mu gën a diis mi ngi tàmbalee ci lépp loo xam ne ñaaw ñaawteef la ci xeetu jëf ak wax rawatina lu jëm ci wàllu sëy yu dagatut ak lu ko nuru teg ca mbewte ci lekk alali jàmbur wala jël sa kàttan teg ko ci kaw nit ba lor ko teg ca bokkaale door caa teg nag waxal yàlla lu mu waxut kon boobu mooy ba nekk ci njombaxtaan la mooy la ci gën a diis ndax ki waxal yàlla lu mu waxut yooyu yépp mën nañoo tàbbi ci biir bokkaale sax day tàbbi ci biir moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci xadis boo xam ne boroom xam-xame xadis yi dëppoo nañ ci ne xadis mutawatir la mu di man kadaba alayya mutaamidan falyatabawa maqaadahu min annaar képp koo xam ne waxal nga ma lu amut man yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na kooku sooy boo muy xaar ab toogoom ëllëg muy ab chaise am ba muy toog ci sawara yàlla nañ ci borom bi tabaraka wa taala musal kon sartu xam-xam munta ñàkk ci ki nga xam ne day ubbee ci wàllu diine ah bu ñu waxee xam-xam nag moo di moom na xam atte sharia yi nga xam ne fa la ñuy ballaloo xam-xam mooy yan muy atte yi aju ci alquran ak sunna ak li ñuy tudde ijma muy lu borom xam-xam yi dëppoo ak li ñuy tudde qiyaas ak lépp loo xam ne lu aju ci loolu la kooku war na koo xam ba ca tegu mooy war naa xam ci ulumul quran ak xadis ak naxwoog lugaak mawaatinul ittifaaq ak ixtilaaf ak ujuhul istinbaat muy lu aji ci xam-xami alquran ak xadis ak li ñuy wax grammaire ak lépp loo xam ne dafa aji wàllu làkk bi nga xam ne ci la alquran ak sunna wàcc xam lu aji ci béréb yi nga xam ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ fa ak béréb yi nga xam ne juyoo nañ fa ak ku bëgg a génne ab àtte ci nas mu di texte boo xam ne alquran la wala xadis noo ko ciy génnee faw mu am xam-xam boobu faw it mu nekk faqih an nafs salim al zihn rasin al fikr fatwa dëgg dëgg dëgg ak li ñu tudde atte lenn lu ci nekk dafa am melokaan wu ñu bëgg nit ki mel ni gannaaw boo xam ne jàng na ba xam ba àggal ci jëmmi boppam dafa war a am melokaan wu mel ci muccu xel ak ci xeeti ñaw ak ci xeeti xalaat yu yu jub loo xam ne daf ne war a mel door a dugg ci géew di ubbee faw it mu nekk koo xam ne ku xam mbir yi nit ñi lañ maanaam aarifan bi axwaalil mustaftiin ndax kat ñi ubbee nu ne la ñuy dikkee ñii laaj ñii laaj ci seen mbirum diine am na ci ñoo xam ne dañoo soxla loo xam ne dañoo bëgg ku leen ko waxal ñooña dafa am nooy jëflante ñoom am ñoo xam ne dañoo laaj ci képp ngir xam am ñoo xam ne dañoo laajub laaj waaye nag dañoo bëgg ñu ubbeeku nii ndax ñu mën koo jëfe nii yor nañ loo xam ne daal xam nañ ne lii am na lu ci nekk ba daganut waaye dañoo bëgg ku leen ko daganal ndax ñu mën koo jëfandikoo faawu mu xàmmee mbiri nit ñi ci seeni waxin yor ak ñor goo xam ne su la dégloo nga wax ba daaneel rek mu xam yow la nga nar waaye du tee nag mu ubbee la la nga xam ne loolu la sharia wax faw it mu xam nag li ñuy tudde maqasidu sharia mu di atte bu sharia teg bu nekk dafa am lum jublu loo xam ne pour jëriñ bindeef yi moo tax ci seen àdduna ak ci seen alaxira mhm. su ko defee jamono yoo xam ne nar naa dem ba indi ab atte boo xam ne dafay xañ askan wi seen njëriñul àdduna wala seen njëriñul alaxira rek war naa taxaw te xam ne njuumte ngi bëgg a am mhm. kon foofu bunt la bu yaatu boo xam ne su ko defee dana xam ne it masail yi nga xam ne borom xam-xam yi dañ koy tuddee masala boo xam ne taum biha al balwa dafa am xeeti masala yoo xam ne nit ki mën na ko ubbee mu doon lu woyof rek waaye njaaxum gu rëy tegu ci goo xam ne bu ëllëgee la cay yàqu kenn xamul nu muy toll kooku mooy charte bu njëkk bi mooy xam-xam ñaareelu charte bi moo di amalu bi muqtada al ilm kii ubbee itam nag bi mu xamee ba àggal jaadu na mu dolli ci beneen charte moo di di jëfe lim xam mhm. kooku lii dalilam maanaam li nu koy tegtal dalilu ala chartiyatihi moo di waxi sunu borom tabaraka wa taala atamuruna annaasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afala taaqiluun ah waaw nu ngi leen di digale nit ñi lu baax ba noppi nag fàtte seen bopp boole ko nag ak di jàng nag téere yi ba am xam-xam waaw xanaa da ngeen a tàggoog seen i xel kon nit ki xam di xamle ngir xamle nga mën a am jëriñ wala mu barkeel wala nit ñi mën caa jëriñu sax faaw nag mu doon koo xam ne day jëfe lam xam loolu amul rek eh, jafe-jafe day daal am charte boobu nag moom it dafa am ay yëf yum làmboo bokk na ci yaar yaara a ci gën a fés moo di kawnuhu mamunan mutanazihan an asbaab alfisq wa xawaarib almurua day doon koo xam ne dana fexe ba lépp loo xam ne lu suufe la ci xeeti jikko rek mu sori ko ñaareel ba mooy dafa war a doon ku yeewu koo xam ne it ku bëgg dëgg lay doon nga xam ne jege na ma ak diw lu tax mu farfarloog moom ba di ko waxal loo xam ne lu amut la wala noonu na ma diw ba tax mu di ko waxal loo xam ne moom itam lu amut ci xàqam la wala bëgg na maa jëriñu ci diw ba tax na dama koy woyofal fatwa bi wala ragal naa diw lor ma ba tax dama ko koy woyofalal yooyu yëpp amu ci faaw nag ku dëggu la war a doon moo tax euh, abu abdullah ibnu batta ci kitaabul xulu dafa jëlee ci al imam ahmad ibnu hanbal mu ne laa yanbagi li rajuli an yamsiba nafsahu lil futya xatta yakuna fiihi xamsu xisaal mm-hmm. nit ki daganul muy jël boppam di ko def mufti muy kuy ubbee ci wàllu ne lu dul bu juróomi yëf yi dajee ci moom mhm. ba ci njëkk nee na an takuna lahu niya fa in lam takun lahu niyatun lam yakun alayhi nuurun wala ala kalaamihi nuur mhm. nee na faw mu doon koo xam ne ku li yéeneem la mhm. ci lii muy def xam-xamam ak ak jëfeem ak jàngaleem lépp yéene ju sell la cay def joo xam ne jëriñ bindeef yi moo ko tax ak wut ab yool su ko defee ci biir loolu nee su fekkee loolu amut sellal gi amul nee na la muy ubbee du amug leer wax ja muy wax nit ñi di ko dégg leer du ca nekk ñaareel ba an yakuna lahu ilmun wa xilmun wa waqaarun wa sakina mu doon koo xam ne nag ku ànd ak xam-xam la waaye mu boole ko akub lewetaay boole ko it amug wegeel ba ku ko gis respecté ko boole ko it nag amug dal ñetteel ba nee na an yakuna qawiyan ala ma huwa fihi wa ala maarifatihi lim xamit nag mu fexe ba xam ko xameen wu wér nag ba mu doon xam-xam boo xam ne bu dëgër la ñeenteel ba nee na alkifaaya wa illa madagahu nnaas nee na nag faw mu am tuuti euh, lu mu am ndax su ko defu rek nit ñi danañ ko exploité danañ ko jëriñoo ci seen i loolu oustaz Ali di wax naan yàlla na yàlla def dara ci suñuy poos loolu itam nee na su fekkee ne nag dara nekkul ci poosam nit ñi mën nañ ko euh, bëcc bëccee jëmee ko fu leen neex loolu ibnul qayim dana ko soraa ci kanam euh, juróomeel ba nee na maarifatu naas nee na faw war naa xam nit ñi loolu mooy tax mu door a mën a ubbee ibnul qayim bi muy soraa ñeenteelu tomb boobu daf ne fa ida lam yakun lahu kifayatun ixtaaja ila nnaas wa ila al axdi mimma fi aydihim mhm. nee na su fekkee ne ah amut lu ko doy lu mu mën a jëfandikoo ci kër ga mhm. moo ko njabootam nee na kooku day aajowoo nit ñi kon te su leen aajowoo di leen tàllal ay loxo mhm. nee na falaa yakulu minhum shay'an illa akalu min laxmihi wa izbihi adaafa nee na lu mu lekk ci ñoom luñ ko jox ne ko ah oustaz lii day jëlal lii addiya la defal lii nangam nangam ne su ko jëlee ba dem la teg ci ab daram mooy ëpp la muy lekk ca lañ ko jox la ñuy ci daram a ko ëpp mu ne waqad kaana li sufyan althawri shay'un min al maal wa kaana laa yastarsilu fi badlih nee na Sufyaan Sawri borom xam-xam bu mag nee na dafa amoon alal waaye nag da ca daan joxe ndànk daawut daawut jékki-jékki rek di xaabaabal di joxe wa yaqulu lawla dalika la tamandala bina haula nee na bu fekkul woon ne lii nekk ci sama loxo tuuti ñu mën cee yor sunu njaboot nee na su dul woon loolu kon ñii danañ ñu jëme fu leen neex danañ ñu bëcc bëccee nee na falaalimu ida munixa ganaan faqad uciina ala tanfidi cilmihi wa ida xtaaja ila annaasi faqad maata cilmuhu wa huwa yandur nee na jamono yoo xamee ne dem na ba borom bi tabaraka wa taala baaxe borom xam-xam bi mu am lum sukkandikoo ci wàllu dundam nee na kooku dimbali nañ ko ci kaw mu mën a jëfe xam-xamam jamono yoo xam ne aajo woon a nit ñi nag nee na su boobaa xam-xamam a ngay dee mu di ko jëf kon loolu ab soññee ngi ci ci ne borom xam-xam bi it nag dafa war a góorgóorlu ci ci ci liggéey nag jéem a kër kër yi jéem a amal loo xam ne lu muy sukkandiku la ngir mën a yabo yor ak njabootam ndax it mu mën a boole loolu ak it nag mën a joxe dara it ndax waxuñu ne yit nag bu mu joxe dara mukk mukk mukk ndax joxe ci jaamu yàlla yi ci la bokk ci juróomeelu tomb bi eh, ibnul qayim daf ko soraabatee mu ne fa in lam yakun faqihan fiihi fa fii faqihan fi l wa nahyi lam yutabiq ahadahuma ala al axar wa illa kaana maa yufsidu akthara mimma yuslih nee na su fekkee ne doonut koo xam ne ku xam nit ñi la xam itam li ñuy dund mu mën a jël loolu ñuy dund lënkale ko ak jëmmi nit ñi ci boppam seeni i seeni doxaliin i nee na su melul noonu li muy yàq mooy ëpp li muy defar ndax kat su fekkee ne doonut ko xam nit ñi dëgg dëgg dëgg nee na kon tasawara lahu zaalimu bi surati al mazlum mhm. nee na nit day ñëw koo xam ne ab tooñkat la won ko ne ko man dañ maa tooñ mhm. wal muxiqu bi surati al mubtil nit day ñëw koo xam ne ku dëggu la waaye ca waxin wu dëng waag nam tëlee leerale mbiram mu ne kii nekkul ci dëgg mhm. wa raaja alayhi al makru wal xidaacu wal ixtiyaal wa tasawara lahu zindiqu fi surati siddiq nee na nit ñi ak seen i pexeeg seen i tappaleeg seeni caaxaan yooyu yëpp bu ñëwee duutu ko mën a xàmmee <laughs> nee na da ngay gis sax koo xam ne ku jàng la ku dëng la bu ñëwee mën naa yor melokaan boo xam ne bu ko gisee danaan kii moo fi gën <laughs> wal kaadibu fi suurati saadiq nee na ku waxul dëgg day ñëw mel ne moo wax dëgg <laughs> moo tax mu teg te dana jaadu mu xam nit ñi xam seeni pexe xam seeni dugg-dugg ak seeni génn xam seeni aada ak seeni cosaan xam seeni baax mu teg ci wax ju am solo mu ne fa inna alfatwa tatagayaru bi tagayuri alzamani walmakan walawaaidi wal axwaal wa dalika kulluhu min diinillah nee na fatwa ci jëmmi boppam dafay soppiku boroom xam-xam bi mën naa génne ab fatwa waaye nee na day soppiku bi tagayuri zaman mën naa doon loo xam ne ci jamono ji la ko waxoon jamono joojo weesu na day aajoo beneen fatwa bu bokkul ak booba mhm. day soppiku nee na it bi taxayuril makaan mën naa am fatwa boo xam ne ci réew sàngam lañ ko fatwa nga bëgg koo jël appliqué ko ci sam réew du sotti mhm. su ko defee leen lu ci nekk dafa am béréb nee na day soppiku ci sababu sottiku aada yi mbir yi ci boppam dañuy soppiku mu soppiku waaye nee na loolu lépp bul jàpp ne lu bees la dina wa hada kulluhu min diinillah nee na loolu lépp ci diine borom bi tabaraka wa la bokk mhm. mu teg ci nag ne yéene ci jëmmi boppam mu nga xam ne moom la al imam ahmad jëkk a wax nee na kooku moom mooy wékkukaayu sellal mhm. sellal moom foofu rek lay dellu moo tax mu ne war naa yëg ni moom de mi ngi ci danger mi ngi ci jafe-jafe bu rëy rëy rëy ndax kat moom dafay signé signature boo xam ne day signé wuutu yàlla moo tax téere boobu mu tudd ko ilaamul muwaqiin an rabbil mhm. maanaam téere la boo xam ne dafay formé wala day jàngal ñi nga xam ne ñoo jóg di signé ci yàlla mhm. nee na kii ubbee day signé ci yàlla kon na ragal yàlla ci boppam na ragal yàlla ci ay mbokkam malik mhm. ibnu anas al imam dafa daan wax ne képp koo xam ne laaj nañ ko masala bala mu tontu jaadu na mu gaaral boppam ci àjjana ak ci sawara hmm. wa kayfa yakunu xalaasuhu fi l axira hmm. summa yujibu fiha si nee na su xalaatee loolu ba noppi door a tontu hmm. waxat su ila an masala laaj nañ ko benn bis masala moom al imam malik mu ne laa adri fa qiila lahu innaha masalatun xafifatun sahla ñu ne ko ah yaa imam lii masala bu woyof la de fa gadiba mu daal di mer wa qaala laysa fi lilmi sheyun xafif ama samiata qawla allahi azza wa jal inna sa nulqi alayka qawlan saqila fal ilmu kulluhu saqil nee na biñ ne ko lu woyof la mu ne leen lu woyof amul ci xam-xam xanaa jàngu leen waxi sun borom tabaraka wa taala mu wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam danañ wàcce ci yow wax ju diis gann mu ne kon xam-xamam lépp xam-xam léppam dafa diis mu ne rawatina nag loo xam ne boo ko waxee fii ci àdduna dañ la koy laaj ëllëg yowmal xiyaama mu teg ci moom Malik ne ma aftaytu xatta shahida li sabuuna anni ahlun li dalik nee na ubbeewuma lu dul gannaaw boo xamee ne juróom-ñaar fukki boroomi xam-xam seede nañ ne ma yow day mën ngaa dem nag ubbee ji mu teg ci ne laa yanbagi li rajulin an yara nafsahu ahlan li cheyin xatta yasala man huwa aalamu minhu nee na jaaduwut ci nit ki muy gis ne moom mii am na lenn lu mu lu dul dafa laaj ña xam ne ñoo ko raw ca loolee su su leen laajee bañ ne ko loolu yeyoo nga ko su boobaa mën naa jëfandikoo lool li Ibnul Qayyim mi ngi koy wax ci téeréem bi ñuy wax I'laamul Muwaqqi'in ca xaajum ñeenteel ba xëtum ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ba ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñett al imaamu Shaabi dañ ko laaj masala mu ne laa adri mu ne xaw ma ñu ne ko ah alaa tastaxi min qawlika laa adri ñu ne ko waaw dooru sa wax ne xaw ma mbooloo mi wër la ak taalibe yi ñëpp la déglu nga daan xaw ma ko wa anta faqihu ahli al iraq ñu ne ko ah te yow iraq yëpp yaay seen faqih ci yow la ñuy dellu mu leen ah nu may kersawo malaayika yi dañu am kersawo wuñ woon ba ñuy wax ne la ilma lana illa ma allamtana ba ñuy wax seen borom ne ko nun day amunu xam-xam lu du loonu xamal nee na malaayika yooyu rusuñu woon loolu ibnu abi layla dafa wax ne dab naa maanaam dund na maag lu mat téeméer ak ñaar fukki ñoo xam ne ci ansaar yi lañ bokk àndandoo yonente bi alayhi salaatu wasalaam min ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi na kenn ci ñoom bu ñu ko laajee masala da lay yebal ci diw demal ca diw boo demee ca diw mu ne la demal ca diw ñii di ko def ba mu dellusiwaat ci ku jëkk mu ne amul kenn ci ñoom koo xam ne daana jëlub xadis di ko wax lu dul day gaat nga rek ak a neexoon diw sàngam jël wax ko man ma toog di déglu loolu moo ma gën a loon waaye nag képp koo xam ne seetlu na gis li nga xam ne noonu noo koy dund ci bisub tey dana gis ne bunt bii di buntu fatwa buñ ko xoolee gaaral ko ci anam googu mhm. danañ gis lu kéemaane lool ci sawar goo xam ne nit ñi sawar nañ ko ci fatwa mhm. ak itam ci ay masala yoo xam ne yu xóot a xóot yu rëy rëy yoo xam ne ay jeex itam jéggi na dayo mhm. masala yoo xam ne suñ ko joxoon omar ibn alxataab radiallahu taala anhu mhm. wala caa wax dara dana dajale ahlul badr <laughs> ahlu badr diisoo caa ak ñoom door caa génne atte mhm. nga gis ku ferankalaayu rek ci benn béréb toog di ko tontu loolu ak dëgëru fit la ak dëjërle la ak ñàkk xam-xam itam mooy war a waral lu mel noonu kon jëmmi ubbee ci xam-xam noo ngi toll ci jamono joo xam ne masala yu bare bare bari rawatina masala yi nga xam ne taamu biha al balwa masala boo xam ne boo ca ubbee fitna mën na caa ubbi ko ba faw yooyu war nañ ci eh, génne yëg ne du liggéeyub kenn nit waaye mbooloo ci boppam ñoo ko war a séq ñoo ci war a génne ay xalaat loolu dina ñëw ci kanam insha allah benn bis benn waaye dafa génn gis rabia ibnu abdurahman góor gu amoo am solo te bari xam-xam mooy cheikhu abi xanifa mu dikk fekk ko mu toog fi bérébam di jooy mu ne ko maa yubkiik waaw looy jooy fa qaal ustuftiya man laa ilma lahu wa dahara fi lislaami amrun azim nee na mu ne day li may jooy mooy dañoo laaj ku amut xam-xam muy tontu mu ne loolu moo tax mbir mu màgg a màgg feeñ ne ci lislaam ci xeeti njaaxum mu teg ca ne wala baadu man yufti haahuna axaqu bi sijni min asuraaq mu ne waat naa ne lu bari ci ñu toog fii di ubbee nee na ñoo gën a yeyoo ci ñu dugal leen ci kaso ba ci sàcc si nekk ci kaso yi ah lenn ci borom xam-xam mu ne a ah, waaw naka la nag su fekkoon ne rabia gis na sun jamono te ki doon wax loolu ci jamono yu yàgg ko doon wax kon xaw ma nun ñii noonu su gisoon sun jamono lan lay wax moo tax waykat ba ne yamudduuna lil iftaai baan qasiratan wa aktharuhum inda alfatawa yukadliku nee na ku ci tàllal sa jéego ci wàllu fatwa rek nga gis ne jéego bu gàtt gàtt la ndax jàng wa du sori te nee lu ëpp ci ñoom nag buy ubbee yu kasliku maanaam kazalika rek lay jëfandikoo waaye nit ñi li ëpp ci ñoom wax dëgg yàlla xàmmeewuñ nit koo xam ne ku xàmmee la ak ku xàmmeewut loolu moo tax mbir mi doon loo xam ne lu aajo seetaat la ñu mat a yërëm lañ itam ah ñaareelu ki ci tegu kon ponk ñaareel bi mooy almustafti kii laaj mooy kii laaj atteb kooku nag maanaam li nga doon wax lépp mi ngi woon ci kenn ki rek loolu lépp mi ngi ci ku njëkk mi ni mu war a mel ki ñuy laaj muy tontu ki ñuy laaj muy tontu waaw loolu de moom oustaz yëpp day dafa naa ne <laughs> boole ko door a tontu des na sax des na lu war a ñëw ci kanam insha allah waaw bisimilah waaw am nañ lu ñuy tudd dawabitul fatwa dawabitul fatwa te tolloo foofa te lépp dina ñëwaat ci mufti boobu mufti ak mustafti ñoom ñëpp ci jëriñ waaw bisimilah oustaz waaw kon ñetteel bi mhm. eh, ñaareel bi mooy almustafti mooy kay laaj mhm. kooku nag euh, yajibu alayhi awalan an yasala an xukmi illahi wa rasulihi sal allahu alayhi walihi wa sallam laa an xukmi gayrillah kooku buy laaj dafa jaadu ne atte bi yàlla ko yonentam lay laaj te suñ ko joxee loolu it nag da koo war a doy euh, ñaareel ba jaadu wut itam nit ki ak loo mage mage loo doon doon kilifa loo màggat màggat bul rusa laaj sa diine borom bi tabaraka wa taala ne fasalu ahla dicri in kuntum la taalamuun su ngeen xamut laaj leen ña xam aïcha radiallahu taala anha daf doon wax ne niama nisaau nisaau l ansar lam yakun alxayaau yamnauhunna an yatafaqahna fi ddin mu ne day jigéeni lansaar yi day ñoo baax kersa daawut te ñu laaj liñ soxlaa xam ci seen diine kon kii laaj na jéem a góorgóorlu ba li muy laaj atteb sharia lay laaj ñaareel ba na góorgóorlu ba ah bañ a kersawu ci lenn ci diineem lu soxla laaj lu nekk na ko laaj su ko defee ñetteelu tomb ba mooy almustafta anhu la ñuy laaj almustafta anhu nag mooy almasalatu alwaqia almuxtaaj ila bayaaniha mooy masala boo xam ne boroom daf koo soxlaa xam wax ne asilatu saailina la taxruju an arbaati anwa la xaamisata la la xaamisa laha nee na ñii laaj seen laaj yi du génn ñeenti laaj yi bi ci jëkk an yasala an al xukum fa yaqulu ma xukum kada wa kada mooy léeg-léeg nit da la ñëwal ne li may laaj mooy lii dafa am lan moo dib atteem lu ci sharia wax ñaareel ba an yasala an dalil al xukum mu ñëw di laaj tegtalub atte bi xam na ne atte bi lii la lii dafa dagan wala daganut lii lu baax la wala lu baaxut la waaye nag baax gi fan lañ sukkandiku ba ne baax na ñàkk gee baax it fan lañ sukkandiku ba ne baax na loolu lay laaj ci moom keneen ki ci des nag dafa ñëw di laaj laaye jii ñu ne atte bii lay tegtale waaw fan la jaar ba tegtale ko maanaam li ñu tudde wëccu dalaale moom lay laaj keneen ki ci des dafa ñëw di laaj ne laaj bi dama ko gisoon ba di ko jëfe waaye damay dox ba mu yàgg ma gis lu mel ne laaya wala lu mel ne xadis boo xam ne dafa mel ne dafa jooyoo ak loolu nan la ñuy def ba dëppale ko moo tax mu ne yasalu an il jawaabi an muaridihi mu ne kon ñeent yooyu rek mooy laaj yi am kooku amul juróomeel nee na nee na nag su fekkee dafa laaj ci atte bi ñëw ne la luy atteb nangam nee na falil masuli xaalataan ki ñuy laaj nee bu boobaa ñaari melokaan rek la yor nee benn mu nekk ku ko xam ba ca des mooy bu ko mu bañ koo xam nee na su ko xamul araam na ci moom mu di ci jiima wax bu ko xamul jeex na nee na léeg-léeg du ko xam waaye dana gis borom xam-xam yi wax ci wax ju bare bare bari su fekkee ne ku mën a nettali waxi borom xam-xam yi la nee na ah noonu wàññiwul dara mu nettali ko ko beneen bi ci des nee na mooy mu xam ko su ko xamee nag nee na bu boobaa na ko tontu nee nag su fekkee noonu la demee kii laaj itam am na yeneen ñaari melokaanam yu mu yore benn bi mooy loo xam ne da koo soxlaa xam tey da ko bëgg a jëfe nee na su boobaa ki nga xam ne moo ko war a tontu muy mufti bi su xamee tontu la daganut ci moom mu di ko yeexe daf ko war a tontu rek fa saase ñaareel ba nee na la muy laaj doon loo xam ne lu amagut la nee na nag su boobaa lu bare bari ci boroom xam-xam yi suñ leen masee laaj lu amagut masala dañuy wax hal kaanat aw waqaat ndax dañuy wax ne ndax lii lu am la wala da nga koo gis fenn mais suñu ko amul de dañ koo xalaat noonu rek ci suñu xel nee na ñu daal lay tontu ne la daana fi aafiya bàyyi noog suñ jàmm ginnaaw loolu amagut bàyyi ko noonu borom bi tabaraka wa taala nag junj na ci loolu ndax daf ne yaa ayuha alladina amanu la tasalu an ashyaa in tubda lakum tasukum bu leen di laaj ay mbir yoo xam ne suñu leen tontoo yenn tont yi du leen neex muslim solo na jële ci saad ibne abi waqas mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa mu ne inna a'zama almuslimina fi almuslimina jurman ki ëpp bàkkaar ci jullit yi nee na man sa man sa'ala an shay'in lam yuharram ala almuslimina fa hurrima min ajli mas'alati ki ñëw fekk loo xam ne araamul woon nga ñëw di laaj bañ araamal ko ci jullit yi nee na kooku mooy ki ci gën a màgg ki ci gën a màgg bàkkaar kon kooku mooy lu aju ci almustafta anhu li ñuy wax nag almufta bihi muy la ñuy tontoo ci boppam kooku mooy tontul mufti ba ca boppam kañ laaj lam tontoo loolee mu tontoo nag ca la ñuy charte ne mufti bi bu koy tontu na sukkandiku ci li ñu tudde dawabitul fatwa loolu xam naa ab tomb la bu war a ñëw ci kanam kon daal ñeenti yëfa yoo xam ne mooy mufti bi tontu ak ki nga xam ne mooy ka koy laaj ak ki la nga xam ne mooy lañuy laaj ak li nga xam ne mooy tontul mufti bi tontu mufti bi nag ci la ñuy ne faw mu tënku ci li ñuy tudde dawaabitul fatwa loolu moo tax mufti bi yoonam nekkaat ci dawaabitul fatwa yi nga xam ne danañ ko waxtaane ci kanam ustaas Ali euh, tabarakallahu docteur Ahmed euh, tontu yi leer na am na solo te itam yaatal gu am solo am na ci muy arkaan yi nga xam ne mooy ñeenti ponk yooyu waaye li nga ci junj léegi lu ci am solo la mooy euh, li nga wax ci mu war a am xam-xam mm. te nga yaatal xam-xamam lool junj ci ay tomb mm. euh, waxit na nag léegi tey nag sunu jamono ji nit da laaj rek mu daal di yëkkati tontu mm. euh, kon defe naa ne ñii déglu war nañoo daal di noté loolu ba bu nu ci àggee moo di xam ne kon mbirum laaj ci diine ngay tontu du lu tuuti lu mag a mag a mag la loo xam ne ci ñuy laaj mu ciy tontu ndax su tontoo lu du noona la muy la jël ci pénc ma euh, su tontoo lu safaanoog la tontu nam mën a jure fitna mhm. loolu saas lu ama am solo la euh, kon damay daldi di euh, ci beneen tomb mu di bi topp ci arkaanul fat fatwa mhm. muy dawaabit yi maanaam li nga xam ne tey mooy dawaabitul fatwa ca boog mën naan mën nañu ne mooy yi nga xam ne moo koy ŋànk ànd ak ponk ya ànd ak moom mm-hmm. yooye la bëgg nga dikkal ci ustaas ni nga ñu dikkalee ci arkaan yi ak leeral fa jazakallahu xayran alhamdulilah barakallahu fikum euh, dawabitul fatwa suñ ko bëggoon a jegeel ci déggu kay déglu dañuy wax ne ay mbir la yoo xam ne ka bëgg a ubbee war na ci tënku maanaam dafa mel ne sax ay charte yoo xam ne jëmmi fatwa ci boppam faww mu mel nii ñu door koo mën a génne ci nit ñi maanaam daal ay tënkam la li ñu tudde règlement loolu mooy li ko réglementé ba nga xam ne bu buy ubbee rek ci la war a sukkandiku kooku ay tomb la yu limu waaye yi ci ëpp solo moo di ba ci jëkk al istimdaadu min al adillati shar'iyya buy tontu la muy tontu na doon loo xam ne da koo jële ci dalil boo xam ne sharia da koo nangu maanaam tegtal boo xam ne sharia moo ko tegtale sharia nag buñ ko waxee mooy alquran ak sunna ak loo xam ne boroom xam-xam yi dañ caa ijma te loolu faw mu dëppoog alquran ak sunna jamono yoo xamee ne dem na nag ba gis ne masala mi juuyoo da cee am su boobaa war naa mën a doon moom kiy ubbee ku mën a tànn wax yooyu ba ci gën a dëgër ba ci gën dëgër mooy ba ci gën a dëppoog alquran wala ba ci gën a dëppoo ak sunna su ko defee bu boobaa booba lay ubbee ñaareelu dawaabit yi mooy li ñuy tudde taxqiiqu manaatil fatwa lii mu ubbee wax ne lii mooy attef sharia muy lu muy daganal wala lu muy xaraamal war naa gëstu ba xam jëmmi atte boobu ci lan la wékku ndax ñàkk a xàmmee manaatul fatwa dana tax nit ki masala lënt ci moom lool lool lool loolu nag buñ ko waxee mooy al amal ala tanzil al fatwa ala waaqiiha jëmmi fatwa bi ci boppam dañ ko war a teg muy li muy ubbee ca la ko tax a jóg ci boppam loolu nag munta ñàkk faaw mufti bi doon ko xam ne nag faqih dëgg lay doon ndax su ko defut mën naa ñëw di taral ci béréb boo xam ne fu ñu war a yombale la mën naa ñëw di yombalit ci béréb boo xam ne dañ fa war a dëgëral al imam ahmad pour joxe mas misaal rek ci Eh, manaatul fatwa ni mu ne su ko bañ a xam dafa def benn nas daf ne waaja day su ñëwoon ci foo xam ne mbirum janaasa la maanaam ab rob la bu ñëwoon bokk ci ab rob bi mu ñëwee bokk ci rob bi gis na nit ña ñuy def loo xam ne su dul noona la ca armeel ya maanaam xeeti munkara nga fay am moo xam biddaa la moo xam loo xam ne lu mën a doon ba noppi su noona soo su mu fa gis muy lu baaxut la mënu koo soppi nee na kon itam day bokkul ci àqam muy dellu ginnaaw xas nañoo bokk ci néew bi la fay xew lu mu mën a doon na ko muñ moom te àggale la ko taxoon a jóg moom imaam ahmad mu dellu dafa beneen nas mu ne waa suñ ko woowoon mu ñëw ci céet kenn ku nekk xam na ne wuy si war na waaye nee na su ñëwoon gis fa loo xam ne su dul noonu la maanaam munkar lu baaxut te mënu koo dindi nee na kooku day dellu ñibbi na jóg ah Ibnul Qayyim nag nee na imaam Ahmad bi mu waxee loolu loolu jàng naa ko jàng ay yoon mu jaaxal na. ñun ñii jaaxal nañu ni. nee na fa sa'altu shaykhana mhm. anil farq. Ibnul Qayyim bu ne shaykhana kam ci jublu. Mhm. mooy shaykhul islam Ibnu Taymiya. Mhm. nee na ma laaj ko waaw loolu wax mal farq. lan moo tàqale ki ñëw ci ci ci janaasa bi muy ci rab bi fekk ñu fay def su sudul noonu ñu ne ko bul dellu. ki ñëw ci ceet gi fekk ñu fay def sudul noonu mënu ko dindi ñu ne ko ñëbil sa kër. mu ne lu tax daf ne li ann alxaqa fi ljanazati lilmayit fala yutraku xaquhu lima faalahu alxayu min almunkar kii te si ci rob bi nee na xaq ji la bee ko moom moom ngay fay si àqam kooku nag su amee keneen kuy dund ku fa nekk di def lu dul noona loolu du ko mën a xañ àqam ndax moom deful dara waaye kii la woo ak ciyatam nga ñëw bokk si ci ba àggal mu nangul su dul noonu am fa kooku moo xañ boppam àqi wuy si ji ndax moo ko defal boppam su boobaa ñu bil sa kër néew bi nag luñ fa mën a def ci kër bul fa jógee bokkal ci suul ba defal sa ñaan loolu ñibbi sa kër ak mhm. luñ fa mën a def ndax mhm. kat dund kat seeni tax ñuy xañ ka tëdd ci suuf moom ñu war koo ñaanal ñu di ko xañ àqam leer na nañ ah. mhm. kon loolu leer na nañ kon faw manaatul fatwa nag xàmmee ko ci liy jox nit ki fiq ci wàllu diine ci la bokk mhm. ñaar ñetteel bi moo di at taxarri lil idaaxi wa tabyin mhm. war naa jéem a lu moom mi ubbee ba li muy wax doon lu leer nañ ñi ndax ki muy waxal xam li mu koy wax mhm. dañuy dund ci jamono joo xam ne nit ñi déggatuñ làkk yi bu dee làkk yi nga xam ne mooy làkk yi réew mi ña ko baaxoo woon di ko làkk léegi li ñuy làkk ci diggante bi la nekk bu dee ñëy làkk tubaab piir wala ñuy làkk arab nit ña ña ca dégg làkk ya bëreetu kon moom may ubbee na jiima góorgóorlu ba la muy wax mu jegeel ko xel yi bañ xam li mu wax ndax kat léeg leen nga wax dara ba àggal da ngay dégg ñuy tasaare ca marché ba di diw nee na nangam loo xam ne boo tuut mooy safaanub la nga waxoon <laughs> léeg-léeg ñu wax la loo xam ne da ngay delluwaat ci kaset ba dégluwaat ko uh-huh. door a xam ne ndekete loola waxoo ko waaye nit ko moo déggut li nga wax lañ ko wax uh-huh. kon wax dëgg jaaduwut nit ki laaj la nga bàyyi ko mu yóbbaale am lënt wala ngëlëmte te fekk euh, li nga wax moo leerut uh-huh. daf ko war jox wax joo xam na ju leer nañ a la joo xam ne su fa jógee du aajo woo di laajaat leneen mhm. moo tax wërta mel ne mufti boo xam ne dañ koo laaj masala bu aju ci miraas mu tontu rek ne yuq sam bayna al warasati ala faraidillahi azza wa jal mhm. maanaam dañ koy séddale rek na ko yàlla santaane na ko yàlla santaane nu mu doon xamuñu ku mu doon <laughs> keneen dañ ko laaj salaatul kusuuf mooy lan mu ne tusalla ala xadiisi aïcha kooku dañ koy jullee nu mu dikkee rek ci xadisu Aïcha kay foofu tontu lu lënt la wax ah, dëgg yàlla keneen ñi laaj ko masala mu ne fiiha qawlaan wala mu yasid mhm. tegu ci benn baat mu ne ñaari wax am na ci mhm. mu jeex tàkk Abu Muhammad ibn Hazm dafay nettali mu ne dafa amoon benn mufti bu nekk fi nun mhm. muy def ida suila an masala laa yufti fiha xata yataqaddamahu man yaktub fa yaktubu huwa jawaabi fiha misla jawaabi cheikh nee na buñ ko laajee masala day bàyyi xam nga jamono yooyu fatwa dañ daan romb ci mufti yi kenn ku ne signé bu ñëwee ci mufti bu njëkk ba day bind su ko defee bu jaaree ci keneen kooku it bind lam gis ci masala ba suñ noppee nag door ko yóbbu ci ka nga xam ne moo jiite yëpp mu door a xool mu ne dafa am benn mufti boo xam ne daan def rek balaa nangoo bind moom dañuy jaar fi nit ba mu bind ba noppi hmm. su ñëwee mu ne ah, man de lu mel ne li cheikh bi jàll wax rek loolu laa wax hmm. nee na benn bis ñaari mufti bind ñoo xam ne dañoo juuyoo kii bind kee bind safaan ba biñ ko indee fa kataba taxta jawaabihima jawaabi misla jawaabi cheikhayn nee na mu ne ah sama tontu day mi ngi mel rek ne maanaam tont naa liñ tont ñoom ñaar daal mhm. fa qiila lahu innahuma qad tanaaqada fa qaala wa ana atanaaqadu kama tanaaqada ñu ne ko ah, ñoom ñaar kat liñ wax moom àndut ndax kii dafa weddi waxi moroom ji mu ne ah man it damay weddi samay wax comme ni ñu seeni wax kon kooka doonut loo xam ne wax dëgg yàlla euh, ku yeyoo toog di ubbee la ñeenteelu tomb bi mooy ifaadatul mustafti ma lam yasal anhu bokk na ci dawaabit yooyu mooy su fekkee ne mufti bi dafa laaj dafa am loo xam ne lu ko amal njariñ la te aju ci laaj bi te laaju ko kooku danga ko war a jox lay cosaan ci loolu mooy wax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam koo laaj ne ko ah waaw nun day benn waay boo xam ne ab rëbbkat la ci géej gi day dem ci géej gi di jàppi ay jën mu ne ko nun léeg-léeg dañuy nekk ci géej gi yor ndox mu tuuti moo xam ne dañ koy aajowoo naan waaw ndax dagan na nu jàpp ci ndoxum géej yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di addu tontu leen ne leen huwa tahuru maauhu alxillu maytatu mu ne leen géej mooy ki nga xam ne am ndoxam laab na méddamit dagan na xana kenn am ndox rek la doon laaj ak lum jàppe waaye tontu na ko ba dollil ko ca ne it ma sax soo ko jisoon dagan na ndax xam na ne kat moom mii di am ay fan ca géej ga bay soxlawoo di laaj lu muy jàppe soxlawoo ne it ku ko leeral mu yëg ne su doxoon ba fekk lu dee ci géej ga dagan na mu lekk ko kon kooku ci li mat la bokk moo tax al imaamul buxaari dafa tarjama ci dafa indi benn bunt ci saxiixam ne baabu man ajaaba saail bi akthara mimma saala anhu bunta ngi boo xam ne daf lay leeral ne dagan nit ki tontu kay laaj loo xam ne moo ëpp la muy laaj dal di indi xadisu abdullah ibnu omar ibnu alxataab radiallahu taala anhuma dafa laaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam ni ko maa yalbasul muhrim kii armal lan la dagan mu sol ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam ko ne ko kooku day du sol mbubb mu ñaw du kaalaw du sol tubéy du sol ay sàng ah lu dul su fekkee amul ay sàng su boobaa sañ naa dagg sang wam yor mooy sang mooy bot yu gudd yoo xam ne day day dem ba ak ci yeel bi mu ne ko sañ na koo dagg mu gën a suufe ñaari dojor yi kooku boo xoolee da gis ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañ koo sol dañ koo laaj amma yalbasul muhrim ki armal lan la war a sol waaye tontu ga lim sol lam dul sol la ko tontu li ko waral mooy lam dul sol moom manees na koo xam waaye nag li muy sol bari na bari goo xam ne kenn mënu faa toog di ko lim kon nam ko laaje ak nam tontoo da gis ne bokkuñu waaye fekk na lam ci jublu moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam mooy jariñ kay laaj jàngalaale ko laajiin ba bu ëllëgee mu laaj loo xam ne dana ci mën a jëriñ bokk na ci itam euh, ci bawaabit yooyu te mooy bi mooy al iraadu amma la yufiidu wal iftaau bi ma yufiid su fekkee nit ki laaj na lu ko jëriñut nga bàyyi loola tontu ko leneen loo xam ne lu koy jariñ la bo yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bis ay nit dañoo ñëw di ko laaj ci mbirum weer wi ñu ne ko waaw weer wi moom lu tax bu feqee day tuuti lool bu yàggee ñu gis ko muy màgg ba mu yàgg mu mat bu yàggee ñu gisaat ko mu tuutiwaat lool borom bi tabaraka wa taala ne ko yasalunaka anil la ñoom day ñi ngi lay laaj teru weer yi qul hiya mawaqitu linnaasi wal xaj tontu leen ne leen terutel weer mooy waxtu yi nit ñi di jariñoo ci seen waxtu yu julleeg seen temps daal nañ koy organiser aj itam lépp loo xam ne lu aju ci wàllu aj la kon ñoom lañ doon laaj mooy weer wi ab tuutaayam akub rëyaayam akub mataayam waaye lañ leen tontu mooy moom lan la leen di jariñ moo di xam ne weer wi fekk na tey la première tey la deuxième tey la fukk juróom mën nga ciy jariñ sa xeeti jaamu yàlla muy say julli sa aj euh, lépp loo xam ne lu tënku la ci weer yi nga xam ne dañuy feet kon kooku lu mënta ñàkk la euh, juróom-benneel bi moo di at tasabbut wa tarawi qabla isdaar su fekkee laaj bi ñëw na dafa war a teey door a tontu masala bu jaaroon ci moom ba mu gëstu ko bu yàgg kon foofu lay war a teey waaye nag su fekkee lu mu xamoon la yàgg na caa tontu nit ñi kooku laa bas su masala bi ñëwee rek mu mën a tontu juróom-ñaareel bi moo di adamul ijmaali fi mawaatina tatatallabu tafsil léeg-léeg laaj bi day dikke noo xam ne boo nee waaw juum boo nee déedéet juum su ko defee nag foofa guute lay doon koo xam ne day jaar day tax boroom war a taxaw nag xalaat masalan su ma la doon jox misaal laaje ngi boo xam ne boroom dafa ne man day damaa jël sama mbubb yóbbu ko ca tailleur ba ne ko wàññil ma mbubb yi ñëw di ko jël si ne ma amoo mbubb ma wax wax mu ne ma amoo fi mbubb ah bi ma demee kalaame ko nag mu door maa jox sama mbubb bi ma joxee mbubb mi nag fekk na mu wàññi ko ndax danaa ko fay wàññi gin ko wàññi ndax danaa ko fay dara wala du ma ko fay dara foofu boo nee waaw juum boo nee déedéet si boroom xam-xam yi dañoo wax ne kooku su fekkee ne ba muy wàññi mbubb ma jiitu na bi mu koy weddi kon da ko fay ndax yow la ko doon wàññil waaye bu fekkee ne bi mu koy wàññi mooy bi mu ko weddee ba àggal ne la amoo fi mbubb kon booba boppam la ko doon wàññil kooku doo ko fay dara foofu mu doon loo xam ne lu mat a xàmmee la ci wàllu tafsil ba tey buñ laajoon benn waay ne ko man de damaa fetal aw rab wala dama koo rey daal bi ma ko defee dagg tànk ba la ca des dem waaw dagg naa tànk ba tànk ba des na fi la ca des dem na waaw tànk bii ndax dama koy lekk wala duma ko lekk boo nee waaw man ngaa juum boo nee déedéet mën ngaa juum lay tontu la foofu mooy su fekkee ne xayawaan boobu maanaam mala boobu buy dund ci géej la dagan na nga lekk ko ndax su doon méddit dagan nañu lekk ko waaye nag bu dee dund ci jéeri ji kooku di su ko lekk kon mbir ngoog moo xam ne lépp loo xam ne lu aaja tafsil la mi lu aaja kooku day jar taxaw leeral ko ba mu leer naañ waaye doo tontu waaw wala déet mu jeex na nag ci tomb yi am solo euh, muy juróom-ñetteel bi mooy an yumahida lil xukmi al mustagrab léeg-léeg atte yi da ci am yoo xam ne yu tumuranke la lay andi tumuranke benn atteb sharia ci aw xeet mooy ñuy ñàkk xam loolu ndax xam ngeen ni kat dangay ngay ñëw ci aw askan muy ab société gis ne lu bare bari ci atte sharia dem na ba réer nga xam ne bu nit ki xëyoon xëy di ko def rek dañ naan kii andi na diine ju bees bu ko waxee ñu dégg ñu ne waa wax na njaaxum kooku lay xikma mooy ginnaaw bakkani nit ñi miinu ko xamuñu ko nañ leen ko jàngal ndànk-ndànk bañ xam ko kooku mooy uslubu quran mooy uslubu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su ma la ci doon jox misaal xoola borom bi tabaraka wa nim jiitale nett lib ak lu aju ci mbiram mhm. door a indi nett lib Isa boo demee ci suratu Maryam mhm. dafa jiital Zakaria waxtaanal la ci ne moom de dafa dem ba màggat mook soxnaam nga xam ne waratuñoo mën a am doom mhm. ñaan sun borom tabaraka wa taala mu defal leen kaawteef muy kéemaan jox leen doom gannaaw boo xamee ne dem nañ ba doon ay màggat mhm. ah kooku kon ba bakkani nit ñi danañ nangu loolu mhm. danañ nangu ne ah ginnaaw màggate ngi moo xam ne demoon na ba ñëpp jàpp nañ ne mënatu la am doom mhm. ah yàlla jox na ko doom kooku di ci kéemaani yàlla yi la waaye nag jéggiwul dayo waaye nag bi mu demee ba ci kanam mu indi xissab Isa ibnu Maryam ne laa nit a ngi nag koo xam ne ma du dafa juddu ci jigéen rek te juddu te amul baay fekk na bakkan yi miinoon nañ kaawteefi sunu borom tabaraka wa taala moo tax ñu mën a nangu xisa boobu waaye buñ tëboon tëb rek ne leen nit a ngi koo xam ne dafa juddu te amul baay su boobaa la muy jur mooy ñu baree bari ci ñoom dañuy weddi loolu ba tey it bokk na ci tomb yooyu juróom-ñeenteel bi moo di tanbihu saail ila ma yarfaul wahm kii laaj bu fekkee ne liñ ko tontu am lënt mën na caa juddoo dana jaadu kooku leeral ko bu baax a baax moo tax ibnul qayim rahimahullahu daf ne bunta ngi boo xam ne bunt bu doy waar la ci bunti xam-xam yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci benn xadis mu ne laa yuqtalu muminun bi kaafirin wala du ahdin fi ahdi nee na daganul ñii rey ab jullit ci sababus yéefar waaye daganut it ñii rey ki nga xam ne dafa siñeente jullit yi accord pour dund ci seen diggante kooku yi daganul ñu di ko rey mu ne bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxee xaaju wax ji xaaj bu njëkk bi mu di diisul rey ab jullit ci sababu yéefar amaana nit mënoon na caa dégg ne ah ginnaaw yéefar rekkat la wax kon ki nga xam ne ci jàmm ngeen nekk jotewu leen dara ah ginnaaw jullit rek la moom bu rey yéefarit kenn ko rey kon ñoo ñëpp mënees leen a rey waaye déedéet ñaareelu jumla bi wala du ahdin fi ahdihi maanaam wala yuqtalu du ahdin fi ahdihi kooku pour dindi lënt moomu ba nit ki du ko yóbbaale la ngir mu yëg ne ni dereti jullit xaraame noonu la xaraame sa dëkkandoo joo xam ne yéen a ngi jàmm moo te fekk nekkul jullit kooku mooy koo xam ne ci ahd la nekk moom lañu ñu tuddee ahlu zimma fukkeel ba moo di an laa taxmilahu al agradu alfasida ala tatabuci alxiyal almuharama aw almakruha maanaam ay bëgg-bëggam wala ay bañ-bañam wërta tax muy seet ay pexe bay daganal lu daganut wala muy yombal lu yombut wala muy jafe loo xam ne lu wërta jafe la alqaadi abulwalid albaaji dafay nettali mu ne am na kenn koo xam ne daf daan ubbee ci jamonoom nee na daf daan wax ne illa alladi li sadiqi alayya ida waqaat lahu xukumatun aw futiya an aftiyahu bi riwayati allati tuwaafiquhu nee na mu ne sama xarit daal bokk na ci àqam mooy su fekkee ne am na masala boo xam ne daf ma koo laaj dama ko war a seetal rek ba gis riwaaye ci ngir mi boo xam ne dëppoo naag moom dana baax ci moom ma jox ko ko wax dëgg yàlla mbir mi du noonu maanaam dëgg rek lañ ko war a jox waaye wari suta seet ne dama koy seetal la nga xam ne moo dëppoog moom waaye lu bari ci nit ñi dañoo jàpp ne eh, mufti bi wala qaadi ji wala xaakim bi su xasee atte dara rek loola noona la léeg-léeg mu atte dara fekk du noona ndax yow bi nga ñëwee bu fekkee ne da ngaa njuuñ njaaj maanaam li nga wax bokk ak la am ba tax mu waxal la loo xam ne lu dagaru la walla lu jaaduwut la lu tax mu soppi dara ci mbir mi maa ngi fàttaliku leen ci nit ñi xam ne ci kaw rek eh, jox la misaal ci Eh, lenn ci nit ñi yaakaar ne mbir moomu borom bi tabaraka wa taala na mu ko àtte dara mën na cee soppiku eh, am na mbokk yoo xam ne bu ñu masaan woor di njël njël jot ci waxtu wañu war a xëdd góor ga daan nobbi ñu di ko wax bay bàcc eh, da nga daan gis ko defar bu xëddam ba àggal seen commune noot yi bay bàcc may ma tuuti taxawal taxawal xaaral may ma tuuti mu taxaw ne leen gaaw leen damay nodd de gaaw leen su ko defee ñu daal di gaaw xëdd bu ñu noppee mu daal di noddi bis bu jubalee jàkka ji rek daal di dem nodd bu subaa da gis ñu ne ko ah yow li nga ma def bii defar sama xëdd bi ba bay bëgg a xëdd rek nga daal di dem nodd nga xam ne day mel ne nodd gi moom mooy téye jamono ji ba waa ji li fi noddul rek yow sañ sañ ngaa lekk waaye fekk mbir mi du noonu jamono ji taxawut day dem waa ji bu noddul woon it asamaan dana set njolloor dana jot Euh, lu bari nag ci ñi nga xam ne dañuy ubbeeloo nit ñi dañuy ñëw di leen jox masala ci anam goo xam ne da bëgg bu ubbee rek loolu yow baax ci yow su ko defee nag soo ko doxalee noonu te fekk la nga wax du dëgg su ko ubbee woon ba mu baax ci yow dara baaxut kon it dara baaxut da koo nax fekk yow sa bopp rek nga nax tomb ba ca tegu moo di an laa yuftiya fi xaali tashawusi fikrihi fi xaali tashawusi fikrihi kon ki ubbee warta ubbee te fekk am xelam dafa jaxasoo xel mu jaxasoo bokk na ci yooyu indi mer fekk dafa xuloo xuloo ba mer kooku bu ubbee ci yooyu jamono ñaareel bi xiif bu metti wala mar bu metti wala njàqare wala nga ment wala coono bu metti wala feebar yooyu yépp lépp loo xam ne dana génne nit ki ci am xelam wala mu koy indi am xelam di jaxasoo jamono yu yëgee loolu ci boppam na téye aw làmmiñam bàyyi ifta ndax su ko defee rek mën naa def njaaxum ba ca tegu di at tafriq bayna masail al fatwa wa masail al qada faaw ñu xam ne masala yi nga xam ne ubbee rek la ak masala yi nga xam ne wàllu àtte la parce que jugement ci boppam bokkul ak lu ñuy wax consultation juridique maanaam wute nañ mufti bi li ko tax a jóg moom mooy wax rek àtte bi waaye nag ndax bu ko àttee ba noppi nit ki dana ko def wala du ko def kooku yoonam nekku ci ki nekk qaadi nag nga xam ne àttekat la moom moom dafay bu àttee ba noppi ba ne nii nii la daf lay topp ba nga def ko kooku moo tax dafa aajowoo pouvoir boo xam ne dañ ko koy jox nguur da koy jox pouvoir mu sañ bu gëstoo ba ne masala bi nii la daal di la koy defloo ah mufti bi nag dalay wax rek laayee la biir nga dem def kon ñaari masala yu faw wu ñu xàmmee leen lu bare bare bari ci masala yoo xam ne nit ñi danañ ko jël muy indi coow seen diggante dafa fekk mufti ba dafa génn fa mu war a yam jàll ci foo xam ne wàllu qadaa la loolu dana di faral di am lool ci wàllu masala yi aju ci wàllu sëy léeg-léeg nga gis koo xam ne day wax day ñëw ne la man day xale bi damaa dem ci baayam bëgg ko te ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawijuhu mhm. su fekkee nit ñëw na koo xam ne gërëm loo ngeen diineem ak jikkoom may leen ko soxna mhm. ah dem naa nag léegi góor gi lànk na léegi dama ko faa bëggoon a bàyyi dem ci keneen mu may ma mu may ma soxna <laughs> loolu nag mënta nekk maanaam bàyyi ko fa dem ñi mayal la doomi jàmbur mhm. loolu loolu qaadee koy def waaye mufti du ko def qaadi moom muy kay atte bu boobaa mooy ñëw ca góor ga enquête ko jëflanteeg moom ne fa waaw góor gi yow ngóor si ndax dafa am loo jam ci diineem su fekkee ne loolu la mu gëstu ba xam loolu dëgg la am déet mhm. su gëstoo gëstu ba mu leer ko ne nag dara xewut waaye góor gi rek dafa lànk doon bañ koo may doom ji su boobaa nag xaadi sañ naa àtte ne ko yow sa kilifteef gii day toxoo ci yow dem ci sa rakk ju góor ji wala sa doom ju góor ji mooy maye sa doom ji léegi mhm. ñu ñëw ci kooka su ko nangoo maye baax na su ko nanguwuta maye mu jàll ca ci sës ba ay bokkam jeex su demee ba jeex moom xaadi ji sañ na ko maye wala imaam ji ko su hmm. ko mayeloo bu boobam maye ko waaye nag yow may iftaa doo sañu tëb euh, dagg ci làng ga rek ñëw fekk doomu nga ne dama koy maye wala dama koy fabal sama bopp loolu mënta nekk hmm. kon fatwa ak xada bokkuñu hmm. moo tax bokk na ci leen di tàqale sax dëgg ngir nga xam ne bokkuñu rek moo di mufti dagan na ci moom baayam di ko laaj mu di ko tontu. Mhm. doomam di ko laaj mu di ko tontu. ki mbokkal société di ko laaj mu di ko tontu. koo xam ne sax mënu koo seede ci genn anam kooku mën na koo tontul ay laaj. Mhm. waaye nag fekk na kooku mënu koo àtte. nit ki su doon àtte ba baayam agsi nag ci tribunal bi dañ daan ko wàccal. sharia noonu lay def. Mhm. indi beneen qaadi mu ñëw taxaw place boobu àtte ko ndax koo xam ne mëtoo ko seede kooku mënoo ko àtte. bokk na ci ñu koy leeral ba tey moo di fatwa ci boppam. as gor mën na ko ab jaam mën na ko jigéen mën na ko góor mën na ko amul amul séparation ñëpp ko man kuñ laaj ku ne ci diine nga xam sañ ngaa tontu ah waaye nag ci atte moom dañ lay wax ne jigéen akub jaam moom lislaam joxu leen pouvoir ñuy atte bokk na ci maanaam ubbee ci boppam aajo woowul ngay indi seede ki nga xam dañ ko laaj muy tontu ko kenn du ko laaj seede ah waaye nag jamono yoo xam ne wàllu àtte ñëw na faaw ñu laaj seede moo tax xadisu hind eh, soxna Abu Sufyaan bi ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah, Abu Sufyaan day dafa nay ndax eh, radiyallahu anhu du ma jox lu ma doy maag sama njaboot ndax sañ na maa jël ci alalam lu nu doy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko waaw waaw sañ nga ko dal di koy ubbee kon foofu du qada waaye waaye iftaa la ndax su fekkoon ne qada la ndaw si wax faaw ñu laaj ko bayi na faw mu dem indi seede soo xam ne day témoigné ne ndaw si lii mu wax dëgg la góor gi dafa nay nangu ko jox waaye yonente bi alayhi salaatu wasalaam laaju ko kon fatwa kenn du ci laaj bayina mooy kenn du ci laaj seede bokk na ci tomb yooyu nga xam ne lépp mi ngi dugg ci rek dawaabit yi moo di al ilmaam bil qawaid al fiqhiya allati tuassasu alayha al fatwa dafa am ay ci biir fiq yoo xam ne ay tëriin yu doy waar la ci wàllu maandute ak ci wàllu jubuk sharia nga xam ne ku koy ku ca xam ko hmm. daanaka sax nañ neexitu sharia ak eh, li wutale sharia al islami ak leneen lu mën a doon daanaka yëg-yëg boobu day des ci sa xol hmm. doo ko xam eh, yooyu nit ki da koy xam door a mën a fatwa hmm. bokk na ci ku ci doon joxe misaal qaayida bi ci bokk ci yi ci gën a màgg mooy qaayida bi ñuy tuddee raful xaraj wal axdu bi taysir yëkkati sharia li ko indi daf cee bokk yëkkatil xeet wi lépp loo xam ne lu tiis la xeetul islaam lépp loo xam ne tiis la wala xat-xat la wala jafe-jafe la sharia dafa ñëw ngir teggil ko loolu kon jamono yoo xamee ne xool nga àtte gis ne luy indiw tiis a ngi ci wala luy indi jafe-jafe wala luy indi ay xat-xat sooy ba nga xoolaat boobu àtte te xam ne yaa ngi bëgg a juum kooku qaayida la boo xam ne sharia al islaam yi ci boppam moo ko teg borom bi tabaraka wa taala moo wax ne wa ma jaala aleykum fi diini min xaraj moom borom bi tabaraka wa taala deful ci diine ji li ñu tudde xaraj muy xat-xat waxaat moom borom bi tabaraka wa taala ne yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usr borom bi tabaraka wa taala dafa bëgg ci yéen ak yombal te bëggul ci yéen lenn lu jafe borom bi tabaraka wa taala dafa wax ne yuridu llahu an yuxafifa ankum wa xuliqa al insaanu daifa moom mi bind doomu aadama yi nee na dafa bëgg a wayafal mbir mi mu leen di sant dafa bëgg mu woyof ndax doomu aadama ci boppam dafa doyadi tabarakallah eh, buxaari dafa solo wala sax buxaari ak muslim ñoom ñaar ñëpp ci xadis boo xam ne bu wér la yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ne yassiru wala tuassiru wa bashiru wala tunaffiru nee na yombal leen te bu leen jafeel bégal leen nit ñi te bu leen leen bañ loo sharia bu leen tax ñu foñ diine ji wax ne innama bu'istum muyassirina walam tub'asu mu'assirin dañ leen a yónni ngir ngeen yombalal nit ñi diine ji waaye yónni leen ngir ngeen jafeel ko tabarakallah kooku qaayida bu màgg la boo xam ne dafa bokk ci maqaasidu sharia su fekkee mufti bi xamu ko mën naa dugal nit ñi ci ay jafe-jafe ci seen wàllu diine su ko xamee nag te déggu ko itam mën naa jàpp ne nag charia it kat nag lépp dafa ñëw benn yoon rek ubbi bunt bi li bëgg a jafe lu ne rek mhm. na nga ko yombal mu jàll waaye fekk ni déedéet nag ci diggante bi la nekk charia al muhammadiya dafa boole ihqaaqul xaq wa rahmatu bil xalq mhm. dafa boole maanaam dëggal li nga xam ne mooy dëgg ba noppi yërëm bindee fi tabarakallah ñële ñoom àtteb charia daf leen di daal di yomb lool ndax ginnaaw façon ko tasawur dañoo wax ne al hukmu ala shay'i far'un an tasawurihi su fekkee ne xas nga xam loola lu mu doon rek tasawur ko dal lu daal di <coughs> kon tomb bu njëkk bi ci li ñu proposé mooy loolu ñaareelu tomb bi moo di tanzimu dawratin wa nadawat lil muftina al mawjudina fi mawaqi al iftaa al muxtalifa euh, la chaque ne am na ay mbokk yoo xam ne ñu ngi góorgóorlu di def ay liggéey yu am solo ci wàllu ifta du wàllu ubbi nit ñi ak leen jàngal seen diine di leen xamal lu ñu xamul woon ci wàllu laaj ak tontu ñenn ñi ñu ngi ci ay rajo di ci def ay liggéey yoo xam ne la chattan yu am njëriñ la ñenn ñi ña nga ci seen i jàkka ña nga laaj na léeg-léeg ñu amal lu mel ne séminaire boo xam ne dañ fay dajale ñay ubbee xool ñeneen ñoo xam ne ñoo leen féete ci ci xàllu xam ñu yokkal leen tuuti seen xam lu mat fukki fan ak juróom lu mat ñaar fukki fan lu mat weer ñu jariñu su ko defee kenn ku nekk delluwaat fa nga nekkoon da yëg ne am nga ak dolliku am nga ak jëm kanam ndax kat béréb yi nga xam ne mooy béréb yi ubbeewukaay yi rawatina lu mel ne rajo ci yi gën a jafe mbir ci la bokk ndax kat euh, lépp loo xam ne su dul noonu la ñuy tasaaree ko ci rajo euh, la koy dégg ci mbooloo di ànd di ko yanu di ko yóbbu kooku wala yaasu billahi mën nañu yóbbaale bàkkaar bu bare bëri su fekkee ne du noonu dañu bëree bëri suñ déggee dañu daal di jëfe lañ jëfe su dul noonu kooku ka leen ubbee wax dëgg jox na leen loo xam ne boo xam ne njuumte la euh, ñetteel ba moo di dama gis ne mbootaay lislaam yu fi nekk war nañoo waroon nañoo def itte ju ëpp ci mbirum fatwa normalement ci seen biir liggéey yenukaay waroon naa am ci biir mbootaay gu nekk donte benn commission sax ak commission boo xam ne dafay ittewoo mbirum mbirum ubbee ci wàllu diine waaye duñ bàyyi mbir mi noonu rek ñu ne masaayix yaa nga ne ku soxlaa laaj laaj kee bu kii ëllëgee kee laaj kee bu ëllëgee kee laaj kee mën naa dem ba indi ay contradiction ci diggante ñoo xam ne sax ci menn mbooloo ñuy dund waxuma xam ne dañoo dandam di nekk ci muy mbooloo nekk ci mële bokk na ci yooyu itam tasiisu maahad li takwin al muftiina qabla fatxi majaali fatwa lahum eh, amal benn institut boo xam ne daara lay doon boo xam ne la jàng jàng ba xam lu bare bari ci fiq xam lu bare bari ci luga nga xam ne jumtuwaay yi ñu war a mën a sukkandiku ngir di fatwa daje na ci seen loxo ñu door leen a dugal ci daara jooju nag won leen mufti bi melokaan yi nga xam ne moom la war a yore won leen itam yi nga xam mënta ñàkk ci moom ñu yar leen ca jàngal leen ko won leen ko essayé leen ci ba mu wóor na ñoom ñii kat war nañoo mën a génn nag ci terrain bi ñu door leen a génne ñuy ubbee juróomeel bi te mooy bi ci mujj moo di daruratu inaayati dawla bi hada amr moo di jëmmi état ci boppam ci réewum lislaam mu demee nii war naa jox itte wetu ubbee ndax kat nit ñu toog ci seeni roq di ubbee ubbee koo xam ne gu teguwul ci yoon la kooku dansale indi ci am réew daanaka sooy ba ma ne fitna yu bari yi nuy dégg ci àdduna tey ay nit di toog fi ay roq ubbil ay nit bañ génn di def ay njaaxum yoo xam ne euh, mën nañoo yàq lu bari mën a faagaagal ay bakkan mën a fekk koom-koom réew ma dajale woon yàq ko loolu lépp ay mufti ñoo toog ca suuf ñoo xam ne ñoo naan leen lii la sharia wax ñooñe ci seenu bëgg lu baax ñu jóg ne dañuy jiima def la ñooñe wax kon nag ngir aar réew mi aar dolli kaaraangeeg nit ñi ci wàllu xam-xam nañ yëg ne ah nim aajo woone su amoon ab docteur tey boo xam ne dafa jóg ubbi ne day faj ay nit te fekk jàngul médecine xamu ko ni ñuy jógee teg ci kawam loo xam ne loi muy sarti réew mi ñoo koy teg ci kawam noonu la jaadoo doomu aadama ji nga xam ne dafa jóg ne day ubbee nit ñi ci wàllu diine xamu ko ñuy teg ci moom mm, lu toll ne la ñuy teg këli wala sax lu ko ëpp waaye rek bàyyi mbir mi noonu mu ubbi ko lu neex waaye wax ci biir diine ji lu neex waaye nga ne lii la yàlla wax lii la yonent bi wax te nit ñi dañoo bëgg seen diine dañoo bëgg lu yàlla wax dañoo bëgg lu yonent bi wax kooku mën naa dugal nit ñi ci ay njaaxum yu rëy rëy rëy su fekkee ne responsabilité yi ci war a jël dëgg-dëgg jëluñu ko ci kon jaadu na euh, jëm mi réew mi ci boppam ñi nga xam ne ñoom ñoo yor euh, man-man te yëg ne borom yi xam-xam ngi ci réew mi yoo xam ne mën nañoo jàppalante ak ñoom dimbalante ñoom <clears throat> war nañ leen mën a jàppale ci amal yu mel ne yii ma tudd léegi ba suñ daje woon bëgg a sos seen kër gu mel noonu nga xam ne fatwa moo tax a jóg luñ mën ci xeeti yombal danañ leen ko ci defal danañ leen ci soññ yëg ne dañoo jiite aw xeet woo xam ne la fa ëpp ay jullit lañ te jullit yooyu dañoo bëgg dund seen diine laaj na kon xam-xam bi ci boppam ñu tasaare ko ci seen biir bañ xam ko ndax dañuy wax ne Eh, genn wàllu yépp li ci yées mooy genn wàllu boroom xam-xam ak genn wàllu docteur ndax docteur bi su fekkee ne genn wàllu fajkat la kooku day dolli toor waaye du du dagg toor su ko defee nag eh, mbir la moo xam ne laaj na bàyyi xel bu baax a baax a baax di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu boole noonu ñun yëpp tawfiq dolli tawfiq ci réew mi dolli lislaam ji dolli jullit yi xam-xam dolli leen bëgg diine dolli leen dund seen diine musal leen ci seytaane ak lépp loo xam ne daf leen di gàllankoor kon Cheikh Ali loolu mooy tomb yi nga xam ne jotoon nañ ko euh, bàyyi xel yëgoon ne faaw rek mm-hmm. euh, jotaay bi ak lu mu gàtt gàtt warees na ko fee jaarale mm-hmm. euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu docteur Mouhammad Ahmad Lo ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di ñaan sunu borom tabaraka wa mu gën a barkeel xam-xam bi eh, jàppale la ci liggéey bi tabarakallah eh, kon mbokk yi yéen a jot a dégg li nga xam ne mooy fatwa ci boppam